Sarr ak Ousmane Sonko dinañu janoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru melay doon ca chambre criminelle loolee nag euh, di doon ayu bis gannaaw boo xam ne kon jàkkaarloo na ak Mame Mbaye ba noppi moom Ousmane Sonko njiitu Pastef ci diffamation bi nga xamante ne nii moom la ciy dem euh, d'appel. Sarr ak Ousmane Sonko dinañu janoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru melay doon ca chambre criminelle loolee nag euh, di doon ayu bis gannaaw boo xam ne kon jàkkaarloo na ak Mame ñang ba noppi moom Ousmane Sonko njiitu Pastef. ci diffamation bi nga xamante ne nii moom la ciy dem euh, d'appel ñu yem fii di leen gërëm bu baax a